loolee kat def nañ ko am ñaan ci commentaire yéen ñëpp dugg leen ngeen wax amin te def ay kër yu xonq bu leen fàtte bés like bi mi tar nga njëmbature jamono ji may wax ak yéen ñoo koy wër ngir bëgg koo jàpp lu mel nag dafay mel ni ñu ngi koy toppee détenu politiciens yi nekk ci groupe bi di Pastef boobee ba tey nag ñu ci ëpp dañoo xamul ba xam dañoo génn Sénégal am ñoo ngi Sénégal waaye fu ñu nekk la ñu xamul am xam nañ fu ñu ne waaye dañ leen a jàpput lu nu mel nag ñu leen ko toppal Maître Ngagne Demba Touré mi ngi yëkkati kàddu di woo peuple Sénégal ñu génn dal di xeexal Ousmane Sonko ngir dal di koy génne fee mu nekk nee na nag li des ci xeex bi mën nañu ne ay seconde la maanaam daanaka rek xeex bi gañ ngeen ko